moo tax dénkaaneem bu mujj mooy yéen ñi nga xam ne yéen la bàyyee sa alal ngeen di ma doon daal dee ma ci saraxeel te di ma ñaanal bu leen fàtte ne maa leen yaroon jàngal leen alxuraan yar leen yarub diine xamal leen nu ngeen di àndeek waa àdduna kon nag dee ma fàttaliku di ma saraxeel te di ma ñaanal xikaayatun li ab nettali la wuya nettaleef na xan abi xulaabata jële ci abi xulaaba ni annahu naka moom ra'a gisoon na maqbaratan ay armeel fil ci ay nelaw kaana armeel yoo xam ne nekkoon na quburuha seeni bàmmeel qadin shaqat di xar am amwaatuhaa te way faatu seen nekkoon nañu ñoom it xadd xarajoo di génn min haa ca bàmmeel ya wa qaadoo te ñu jekki xalaa shafiiri quboorihim ci kóosu seeni bàmmeel wa na yaday kulli waahidin te nekk na ci diggante yaari loxo yi kenn ku ne maanaam daal nekk na ci kanamu kenn ku ne rek minhum ci ñoom tabaqun ab palaat wala ndab min nuurin ci leer wara aate mu gis baynahum ci seen diggante rajulan waay min jiraanihim ju bokk ci seeni dëkkandoo walam yara te gisut shay an dara bayna yedday yi muy nekk diggante yaari loxoom maanaam muy nekk ci kanamam min nuurin ci leer fa sa'alahu te mu laaj ko fa qaala te mu wax lahoo ko laa araa may gis bay na yadayka diggante sa yaari loxo chey an dara dina nuuri ci leer xaala wax la ko almaytu néew ba ko inna haulaay naka ñii awlaaduhum seeni doom wa asdiqaauhum ak seeni xarit yaddu xoona danañu ñaan lahum ñeel leen waaye tasaddaqoona te ñuy saraxe li ajlihim ngir ñoom wa haada nuuru te gile leer mimma bokk na ci la nga xam ne yóbbu xasu def na ko yónnee ilayhim jëm ci ñoom wa na lii naka ñeel na ma wala dan doom saalihan judi aji baax laa yaddoxoo doj du ñaan lii ñeel ma wala yatasaddaqu te du saraxe li aji lii ngir man walihaasa ngir lii lam yakun nekkut lii di ma ñeel nuurul leer kamaatara ni nga gise wa anaate man fil xajali maa ngi nekk ci kersa bay na jiraan diggante samay dëkkandoo fanta ba te yeewu abu qulaaba te abu wa dahaba te mu dem ila bunil mayti jëm ci doomi néew boobee wa axbarahu te mu xibaar ko bi maa ci la nga xam ni ra'aahu gént na ko min xaali yi ci mbirum baayam fa xaalate wax alwaladu doom ja ko indi naka man tubutu tuub naa xalaa yaday ko ci sa yaari loxo fala ahudu duma dellu ilaa ma jëm ci li nga xam ne kuntu nekkoon naa xaali ci moom abadan mukk fa sharaxante mu tàmbali yeddoxoo di ñaan lil waalidi ñeel waajur wa dubura kulli salaatin ci gannaaw gépp julli waaye te saddaqu te muy saraxe lëxoo ñeel ko falamma atat ba nga xamee dikk na xala abi xulaabata ci abi xulaabata muddatun ab diir ra'a mu ay doon ba tey fil manaami ci biir ay nelaw tilkal maqbarata yooyee armeel xala xaalihaa ca mbiram ma al awali ma aji jëkk wara aate mu gis waaja al madkuura jadi tudd awalan ci njëlbeen yanuuru muy leer xabruhoo bàmmeelam ba wa yaxruju tey génne nuur yi ca leeram nga nuurun leer adwa u og moo gën a leer mina samsi ci jant bi wa aksar te moo gën a bari min nuuri asxaabihi ci leerub ay àndaaleem maanaam ay moroomam faqaal te mu wax na ko yaa abaa qulaabata yow abaa qulaaba jasaaka yal na la fay allahu yàlla àndi walis ma xayran aw yiw te xawle ko ci sa wax ja na jawtu laa mucce minan naari ci sawara wa min xajal yi ak ci sama grus bay na jiiraani diggante samay dëkkandoo net li boobu daa a gudd ku ñu wax abu xulaaba dafa géntoon gis ay armeel bàmmeeli xar bàmmeel bu ne am ku ca génne toog ca bitti ca pegg bàmmeel ba mu gis kenn ku ne ci ñoom yaa ngi tiim ndab lu fees akuk leer ñoom ñëpp daal gis na kenn ku ne ba nga génnee ci sa bàmmeel yaa nga toog ca pegg ba tiim ndab lu fees leer ba mu des nag kenn koo xam ne moom tiibul dara dara ci leer abu xulaabata laaj ko ci gént gi na gént ne ko waaw lu tax ñii nga bokkal nekk ci armeel yi kenn ku ne tiim ndab lu fees ak leer yow nag tiimoo dara mu ne ko ñii day seeni doom ak seeni xarit dañu leen di ñaanal di leen saraxeel moo tax nga gis kenn ku ne ci ñoom tiim ndab lu fees ak leer man nag bàyyi naa doom ju baax sax waaye moom dama dul ñaanal duma saraxeel loolu moo tax gisoo ma tiim ndab lu fees ak leer mu ne ko moo tax am naa kersa lool ci ñoom samay dëkkandoo am loo xam ne man awma ko moo taxit maa ngi rus lool nekk seen biir ñu am loo xam ne man awma ko naka abu ba tey yeewu ca gént ga dem ca doomi néew boobee ne ko man day biig gént naa gis armeel ya sa waajur rekk laa gis tiimut ndab lu fees ak leer laaj naa ko nag mu ne ma ñi nga xam ne am nañu ndab yu fees ak leer ña ñu bàyyi dañu leen di ñaanal ak saraxeel man nag saa doom ja ku baax la waaye duma ñaanal duma saraxeel doom ja ne ko ah kon day na la ne tuub naa li ma weesu lépp dafa fas sax ci di ko ñaanal di ko saraxeel te it doom ja na mu ko waxee noonu la ko defee dafa daal tàmbali saa yu jullee farata ba sëlmal rek daal di ñaanal baayam sax itam ci di ko saraxeel bañ ca tegaateeb diir nag aboo xulaa tamit géntoon gént gi dellu géntaat gisaat armeel ya noonu leen njëkkoon a gise waaye nag bi yoon moom kii nga xam ne te bu jëkk amutoon ndab lu fees ak leer maanaam tiimutoon dara te mel moom rek moo ko amutoon bi yoon moom gis na ne moo ci ëpple ak leer leer nga ko yàlla may daal dafa rëy ba man nga ne moo gën leer jant bi te amu ca kenn ku fa nekk koo xam ne am nga leer gu toll ne gi mu am mu daal di wax abu xulaabata ne ko yal na la yàlla fay aw yiw la nga wax sama doom ja bañ wëlbatiku di ma ñaanal di ma saraxeel kat moo tax ma am leer gi nga xam ne kenn ci ñi ma dendal amut bu ni toll li ma daa rus ci toogaale ñoom rek dañ na ndax maa leen ëppale sax leer amatuma kersa mucc naa sant naa nett li bii nag war naa tax képp ku am ñu ko jiitu ca këru dëgg ga rek muy baril di leen ñaanal ak di leen saraxeel faslu li ab dog la fi zikril musibati ci tudd musiba ma xindal mawti fa deega wa sabri ak muñ ga aleha ca moom day wax na ci dog bii dee mi nga xam ne yàllaa ko booleek ñiy dund te li fekk boromu réew mi ngi fi rek muy am ci coobare yàlla day wax nag bu ko yàlla indee muy musiba nañ ca war a muñe te bañ a saalit muñ bu baax rek te yaakaar tuyaaba yàlla ca muñ ga ak rafetal ga wa fil xabari nekk na ci xabar ànd man naka ka nga xam ne osi ba joteef na ko bi musibatin ci musiba fa xaraqate mu xotti tawban malaan wa darabate mu dóor sadran ab dënn fakk annama axasa daanaka jël na rumxan ab xeej wa xaaraba te mu xarente bihi ak xeej bi rabbahu boroomam xabar ba nee na ku yàlla teg musiba ni ki yàlla teg ko mu faatule tax muy xottite ay siram mbaa muy dóor ab dënnam kooku dafa mel ne daa jël ab xeej di song yàlla naa ko damay xeex ak yow kon nag ku yàlla teg musiba ni ki mu faatule na moytoo dóor ab dënnam mbaa fenn ci yaramam mbaa muy xotti ay siram mbaa lu koy nuru na muy rekk te rafetal muñ ga waruya nettaleef na ani yi jële ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne allahoo naka moom xaala waxoon na ne an naaixatu aji déjjeetu waman ak nga xam ne xawlaha nekk na ci am kéewam maam nekk na ci la ko wër min mustamiiha ci way dégloom alayha nekk na ca moom laanatullaahi rabum yàlla wal malaayikati ak malaaka ya wannaas ak nit yi na mboole seen am na addis bu ñu nett li ne yonent bi nee na woon kuy déjeetu déjeetu mooy di jooy ku faatu di neexantal jooyee mel ni am muus di wàññiwaale nag ay baax baaxam ak di wax naa dañ koo këf di wax wax yu mel noonu loolu mooy déjeetu di ci ëpp jigéen dañ ko daan def mu ne nag ku koy def ak ña ko wër di ko déglu ñoom ñëpp yàlla da leen rëbb malaaka yëpp rëbb leen ñu boole ci yeyoo doomi aadama yëpp yépp rëbb leen doonte sax mën naa am ñenn ci doomi aadama yi di leen seetaan aka yéem aka naw waaye dal kay def déjjeetu googu ak ña ko wër daal yeyoo nañu rëbbum yàlla yeyoo nañu rëbbum malaaka yi ak rëbbum mboolem nit ñëpp ñëpp ñëpp waru yéenet lef na ne àndahoo naka moom lamma maata ba faatoo alxuseynu xuseynu radiya yàlla na doolee gërëm allahu yàlla anhu walis ko dafa bind alxuseynu waaye xëy na muy alxasan teewul nag alxuseynu daal lañu bind fii i'takafat saxoon na imraatuhu jigéenam ja xalaa qabrihi ca bàmmeelam ba sanatan diiru at falamma tammat ba matee asanatu at ma rajaxat mu dellu mahaman ànd ak ña nga xam ne makasoo saxoon nañu ànd ak moom wa sami'o te ñu dégg bi sawtin ci ak kàddu min jaanibil xabri gu ca wetu bàmmeel ba mu naa leen xal wajadoo ndax for nañu maa la nga xam ne faqadoo ñàkkoon nañu ko wasamihoo te ñu déggaat aydan ba tey sawtan kàddu aaxara ganeen min jaanibin tukkee ci wàll aaxara ganeen mën leen bal li fi nekk ya isoo naagu nañu fan sarafoo te ñu wañar bi ku dem net li boobu dane alxuseynu waaye daa mel ni alxasan la gën a nuru ba mu génnee àdduna soxnaam ak ñeneen dañoo bokk ànd ak moom sanc foofa ca bàmmeel ba toog fa rekk mel ne fas ñu fa yéenee jóg am soxna si ak ñam àndaloon sax nañ foofee ca armeelu asan ba baa bu dee useynu lu toll ni at ba at na matee nag bu daal di dellu ñibbi ci kër ga mook ñamu àndaloon ba ñuy dellu nag ñu dégg kàddu goo xam ne mel na ne ma nga bàyyikoo ca wetu bàmmeel ba naa leen waaw ndax da a for la ngeen réer la woonam déet maanaam ka faatu ngeen toog di ko xaar ndax daa génn ba ngeen gis ko moo tax ngeen di dellu ci kër ga geneen kàddu tontu laajte boobu moom it ñu ngay dégg kàddu ga mu bàyyi ko ca wetu bàmmeel ba wet ga ca des mu naa ah déedéet fóoruñu kay lañu réer la woon maanaam ka ñu toog di ko xaar kay génnut ba ñu gisaat ko dañoo naagu rekk xam ne lu yàgg-yàgg ka dem na dem na du del seeti moo tax ñu ñibbi ca kër ga warum ya net leef na ani nabi yi jële ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wa naka moom xaala waxoon na ne man sawwada ku ñuulal baaban ab bunt minal musibati ngir musiba aw xaraqa wala mu xotti tawban malaan aw xalaqa wala mu wat chaaran kawar bu niya kon tabaxeef la ko bi kulli ci bépp kawar baytun ab néeg finnaari ca sawara fakka tey day mel ni daanaka bokkaale na fii dami sabihiina ci dereeti juróom ci yonante wala yaqbalu te du nangu allahu yàlla la ko sirfan farata wala xadalan du caagéenu naafila ay limu ci namm faradan farata wala naflan du caagéenu naafila maadaama li fi sax na daalika sawaadu boobee ñuulaay xalaa baabihi ci buntam ba wa dayaxate xatal allahu yàlla taxalaa kawe na alayhi ci moom xabraxoo bàmmeelam ba wa shaddadate mu taral alayhi ci moom xisaabaxoo xisaabam wala anaxooti rëbbu ko ku ci bépp bis malaayikatu samaawaati malaayika yi asamaan si wal ak suuf wa kataba te bind allahu yàlla alayhi war ko alfa alfi xatiatin junni junni ñaawteef mel na nga ne rek millions yi ñaawteef waqaama te mu jóg yowmal xiyaamat ci bis penc xabri yi dukkee ci bàmmeelam ba xoryaanan mbir mu ngi aji rafle wa man xaraxa ku xotti jay baatub mbubbam jay bu day firi poos di firi baatub mbubb xaraxa kon xotti allahu yàlla diinahoo diineem wa man lattama ku pes xadday yaari li xam xarama araamal allahu yàlla xale ci moom an nadara xool ga ilaa wa ci yi jëm ci jëmmam ja alkarimi jay aji tedd nett lee nañ ci yonante bi mu ne ku yàlla teg musiba ni ki mu faatule tax mu daal di jël lu ñuul di ko ñuulale buntu néegam mu def daal lu ñuul ca buntu néegam ndax ku ko gis xam ne moom mii kat dafa faatule mbaa boog mu faatule tax muy xotti ay yéreem mbaa tax muy wat kawaram kooku day suñu borom dana ko teg yu diis diis bokk na ci yam koy teg su watee kawaram ngir faatule gam faatule ku wàññi kawar yeneen tollu yàlla dina ko defal ay néeg yu toll noonu ca sawara li mu kawar ya bare rek noonu la ay néegi sawaraam di bare teyit yàlla du nangooti dara lu mu def ci lu baax moo xam day farata moo xam day naafila li fekk nga xam ne rek ñuul ñuul ba mu defoon ca buntu néegam ba tey ma nga fa rek yàlla du nangu daraam du farata jum def du naafila teyit bu faatoo ba dugg ci bàmmeelam yàlla day xatal bàmmeel ba ba mu xat lool ci moom teg ko xisaab yu méttee metti te it mboolem malaaka yi dañuy maase ci di ko rëbb muy malaakay kaw ak malaakay suuf misaal gi muy misaal nag ni nga xam ne moom la bàkkaaram di réye moo tax mu ne yàlla da koy bindal junni junni ñaawteef muy ci misaal millions yi ñaawteef tey day mel ne ku fekke woon juróom ñaar fukki yonante yu ñuy rey mu ànd ca rey ga bokk ca tuur dereti yonante yooyee lu tol noonu ci bàkkaar lay gàddu su bis nag ba yàlla dekkal jaam ñi bu mu jóg ba taxaw yaram yaramu neen lay def du amee dara dara lu ko wër muy sàng awraam mu jàll nag wax ne ku yàlla teg musiba tax muy xotti baatu mbubbam la ko yàllay faye mooy xotti diineem maanaam yàq diineem te diine kat mooy xéewal gi ëpp solo ci lu yàlla xéewal ab jaamam ndax suñ boroom bu dee àdduna si dana ko jox ku mu sopp dana ko jox ku mu sopput waaye diine moom ku mu sopp rekk la koy jox mu teg ce ne ku yàlla teg musiba ni ki faatule tax muy pes ay leexam yàlla day araamal ci moom gis jëmum ju tedd ji bu ëllëgee ca bis pénc te nee nañu ngay dem àjjana gis nga ñuy gis jëm yàlla ju tedd ji mooy dàq ci ñoom jëmi àjjana ja ñu jëm ja ñu nekk wa fil xabari nekk na ci xabar anna nabiya naka yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ba faatoo ibnuhu doomam ja ibrahimu tama ibrahim fa dama xatte rongooñu ay naahu ñaari batam ña faqaal te wax laxoo ñeel ko abdurahman ibnu xawfin radiallahu ne ko yaa rasulallahi alasta ndax déer yow xadduna haytanaa nga tere woon anil bukaay walis jooy faqaala mu ne ko innama nahaytukum naka tere woon naa leen xanil nawxi walis déjeetu wal xinaa yi ak way waxan shaqil wajhi ak walis xotti kanam wa shaqil jiyow bi ak xotti ay baati mbubb fa dalika loolee fi alul kafarati jëfi way weddi ñaa wal fajarati ak way saay-saay ña wa amma hawsa daal fa rahmatun yërmaande la jaxalahaa juj def na ko allahu yàlla fi qulubil xalaa'iqi ci xoli mbindeef yi ak ruxamaa ña di bari yërmande su ma xaal topp mu ne mu doonante bi sallallahu alayhi wa sallam alqalbu xol bi yaxzanu dana jàq wal xaynu te bët bi taddmahu dana rongooñu walla naqulu te duñ wax illa ma dara la nga xam ne yurdi dana gërëmloo arrabba buur bi te mooy yàlla addis boobu dane yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba doom ja tudd Ibrahima génne àdduna dañ koo gis ay bëtam di sotti ay rongooñ ku ñu wax Abdurahman mi ñu wax Ibnu Xawfu ne ko waaw ah daan na yaa ngi jooy danga nga daa aaye jooy mu ne ko la ma daa aaye kat mooy déjjeetu maanaam am ku faatu di ko jooy ci kaw di neexantal jooy mel ne muus muy sab ak wayantu mbaa boog faatule tax ngay xotti sa kanam mbaa ngay xotti sa sér niki sa baat mbubb mu ne loolu laa aaye woon waaye ndax loolu ñewet yàlla ak saay-saay si rek ñoo koy def waaye sotti rongoñ kese moom te àndut ak kàddu àndut ak ñaxtu yërmande rek la ji yàlla def ci xoli yenn jaamam yi nga xam dañoo bari yërmande bu seen xol feesee rek faaw ñu sotti ay rongoñ ndax seen xol giif mu ne ko xol bi dana mettit lu bët bi it mi ngi sotti rongoñ waaye lu yàlla gërëm rek laay wax loolu nag yonent bi aw royteef la ci mooy ku yàlla teg nga ñàkk ku sori ci yow mën naa metti ci sa xol say bët mën naa sotti ay rongoñ waaye fex waaye na fexe ba bul wax ci sa làmmiñ lu may la yàlla gërëm bul jëf ci say cër lu may la yàlla gërëm ndax yonent bi nee na xol bi dana jàq ka metit lu bi di sotti rongoñ waaye duñu wax lu may la yàlla gërëm rekk la ñuy wax wa qaala abu xanifata raximahu yàlla na ko doole yërëm allahu yàlla taxalaa kawe na li an nawxu déjjeetu xaraamun aji araam la wala ba asa ayut bil bukaay ci jooy alal mayti ca néew ba bit dumuuxa ci ay rongooñ walakin waaye as sabru muñ afdalu moo gën li anna laax ngir naka yàlla xaala wax na ne xaala wax na ne innama yuwaffa saabiruna innama yuwaffa naka def na matalal as saabiruna way muñ ña ajrahum seen yool bi xëyri xisaabin ci lu xisaab Abu Xanifa daa wax ne déjjeetu moom daa araam waxoon naa léegi luy déjjeetu mu ne waaye nag jooy goo xam ne ay rongoñ rek mooy sotti ko waaye wax àndu ca loolu moom ayut màndargam yërmande la sax ci ni ko yonante bi waxe woon léegi mu ne waaye nag ku ko man da muñ bu rafet rek bañ a jooy bañ a sotti ay rongoñ muñ muñ bu rafet ndax suñu borom nee na muñkat yi moom bu ëllëgee moo leen di fay tuyaaba dama koy sotti rek di sotti waaye du nekk lu may nattaka peese muñkat yi moom seen pay bu ëllëgee dañ koy sotti muy ay jali rek waaye du nekk luñ mën a peesee ka wàññee na an rasulillah jële ci yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ni annahu naka moom waxoon na ne awaluma aji jëkki la nga xam ne ba bind na ko alqalamu xalima ga fi lawxi almaxfuusi ci allawxul maxfuus bi amrillahi ci ndigalal yàlla mooy anaaman allahumma di yàlla laa ilaha amul benn buur illaa ana ndare man muhammadul muhammad xab ji sama jaama wa rasool yi tey sama ndaw wa xiirat yi tey sama tànneef min xalq ci samay mindéef man istaslama ku womatu li xadaa yi jëm ci sama àtte wa sabarate mu muñ xalaa balaa yi ci sama balaa wa shakarate mu sant li na amaa yi ñeel sama xéewal katabtuhu ma bind ko siddiixan mu di ab dëggalaa wa ab xasuhu te danaa ko dekkal ma xas siddiixiina mu ànd ak dëggalaa kon ya yowmal xiyaamati ca bispenc wa man lam yastaslim koo xam ne nag womatu wut li xadaa yi ñeel sama àtte maa laa dogal walam yasbir te muñut xalaa balaa yi ci sama balaa walam yashkur te santut naamaa yi sama xéewal fal yaxruju na génn min taxti samaa yi bàyyi ko ci ron sama asamaan si wal yatlub te na sàkku rabban buur siwaa yi bu may man mu ne nettali nañu jële ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu wax ne li yàlla njëkk wax xalima gi ne ko bind ko ci allawhu almahfuuz moo di danay ko bindal ne man yàlla man rekk maay buur kenn du buur ku may man teg ca ne Muhammad sama jaama moo ma gënal ci ñépp ñi ma sàkk ma def ko it muy sama ndaw mu dib yonante mu teg ci ne ko bindal ne képp koo xam ne lu ma dogal mu neex la su ma la tegee balaa nga muñ su ma la joxee xéewal nga sant siddiq te daraja ju kawe kawe bu yonente yi jàllee seen saxaaba ya nga xam ni dañu leen a gëm ba àgg ca